Thank <laughs> you. Bataille tey ci seen acte du jour tey ajjuma juróom-ñetti fan ci wéru décembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett fii ci la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai dañuy dem fële ci Toulouse Toulouse pas bañ fa démé dañ fa fekk ki nga xamante moy mooy rappeur bi di artiste international di Fada Freddy bokon ci groupe Dara ji bobu ginnaw bu mu amalee foofa concert de Toulouse mom dal yëkëti na ay kaddu néna pour que ñu mëna a que une vraie démocratie moy ñu libérer ki nga xamante moy Ousmane Sonko du samay cadeau nak kàddu Fada Freddy la pour que Sénégal xamna vraie démocratie fokk ñu libérer ki nga xamanteni moy Ousmane Sonko ginnaw lolu nak Fada Freddy mi ngi demandé li nga xamanteni moy libération Ousmane Sonko ginnaw bi nga xamanteni ben concert bu mu doon amal fofu ci France plus précisément fofu ci Toulouse. qui dit Fada Freddy dal xamal ni que libérer Ousmane Sonko moy vraie démocratie ba nopi dal di def autrement pour appartenir ci li nga xamanteni moy démocratie bi nga xamante ni mooy benn forcing bi nga xamante ni ñu ngi koy indi ci réew mi ba tey mi ngi xamal nekkul di wax ak li nga xamante ni mooy ay élection ci Sénégal mais ay adversaires politiques yoo xamante ni tey dañu war a nekk ñoo xamante ni dañu enfermé wu jëm ci li nga xamante ni mooy libéré li nga xamante ni mooy organisé enfin ay élection yu démocratique ba noppi. Dans di koy tek ci démocratie lool dal la Fada déclaré fofu ginnaw ay applaudissement na public bi nga Toulouse. en tout cas su on libéré Ousmane Sonko rek la démocratie ci biir réew kon nañu que démocratie on peut dire l'anarchie. xam nga anarchie nit ku problème avec la justice. Justice ci démocratie Fada Freddy un artiste international très intelligent et très pertinent tay su taxawé libéré Ousmane Sonko moy démocratie té mu xamné Ousmane Sonko kenn japp ko ci coobare bopam dafa wàcc yoon. Fadé Freddy de mars 2021 à juin 2023 lu nekk xewna Sénégal ëmët xewna Sénégal appel à l'instruction xewna Sénégal injure calomnie xewna Sénégal ci suñu ay institution ak suñuy ay autorité Fadé Freddy ngay un porteur de voix wara wax musoo téye sa micro wax ci musoo def singal wax ci musoo yey yàbbi ci bul tok tay ba décembre 2023 nga nek ci ben concert xam ni ko wa diaspora bi dañu bëgg ki nga xamanteni moy Ousmane Sonko pour se faire ben nom pour que ñu bañ a huer sa concert nga bëgg jappalé Ousmane Sonko yaa ngi wax lu safaanoog deug Fada Ferry je te respecte beaucoup tu es un artiste talentueux tu es un sénégalais mais wax deug su joté awma ci xajjak sen kon yaakaar naa ni sa discours bi nga ne soudé dee am démocratie moy libérer Ousmane Sonko Fada Freddy xamoo démocratie wala da nga indi hypocrisie wala nga indi ben malhonnêteté intellectuelle par rapport à ta voix et ta musique pour l'imposer au Sénégal Fada Freddy tout ce qui s'est passé au Sénégal tu n'as jamais hissé un seul mot pour parler Fada Freddy barki dembou la ay jeune bok ci Ousmane Sonko djel ben bus Tata sànni fa ay cocktail Molotov appel à l'instruction trouble à l'ordre public injure publique de Ousmane Sonko contre le président de la République Macky Sall qui dit que nañu dox dem palais am 5000 jeunes région bu nek su mille nangam sangam dinañ déloger Macky Sall dans ko ni Samuel Do. Fada Freddy yëkëti wo wax ci en tant que un jeune sénégalais qui veut la paix et l'instabilité et la sécurité dans son pays c'est aujourd'hui que peux-tu soulever ta voix pour dire libérer Ousmane Sonko ça veut dire que le Sénégal a une démocratie Fada Freddy tu m'as dessus aujourd'hui avec tout le respect que je te devais je te dis aujourd'hui tu m'as déçu et tu m'as honti tey mangi ngi gëm ni que artistes sénégalais yi ndekete ñen ñu du wax dëgg seen faveur ak seen intérêt bo leen neex mënoon nga soutenir Ousmane Sonko nañu xol atte ko su dé deful lu def na luy yoon ñu bayiko su dé deful lu yoon mais libérer Ousmane Sonko moy indi démocratie pour Ousmane Sonko participer à des élections si le Sénégal veut continuer comme ça nañu xam que ñu ngi jëm ci anarchie on est pollué par une malhonnêteté intellectuelle qui passe par des gens Qui sont porteurs de voix Nous nous ñoo participer pour régner la stabilité et la paix dans ce pays Fade Freddy ce que Ousmane Sonko a fait de mars 2021 à 2023 Il y a réseaux sociaux Il télé yi ba France boobu nga nekk barki reportages reportage canal enchaîné mu canard enchaîné xam nga ko bu a reportage lan ngay wax ci Fada Freddy lan ngay wax les 40 personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations quand Ousmane Sonko appelait à l'instruction élection lan ngay wax papay Adji Sarr bi nga xamante amul yaay bi nga Ousmane Sonko mo bay ñaari soxnam dem fekk ko en pleine couvre-feu violer le lo xamante règle la orientation couvre-feu yow Fada Freddy ñeme wo jouer ñeme woo pressé 19h ñu tëj la sa biir Ousmane Sonko am privilège en tant que député pour servir askanam mu jël askanam teg leen fële fekk benen askan bo xamante ñi ngi ñak ci illégalité lekkuñu ci droit di exercer benn métier bo xamante proxénétisme la buggoo sa doom def ko go ki nga xam def ko go sa mbokk def ko sa def ko Ousmane Sonko fekk fa xale bu ndaw def naam defut waaye tëj nañ ko ci corruption à la jeunesse amaana tëddee na fa ay xale yu ndaw lan ngay njëkk wax ci lolu Sada Freddy Tu as dee da nga bëgg réclamer démocratie en disant libéral, Ousmane Sonko c'est la vraie démocratie Sada Freddy tu es passé à côté tu es passé par la peur tu es passé pour avoir la gloire ak ay applaudissement pour que yenn ay dof yu top Ousmane Sonko tu le fofu en France parce que ni métier parce que tu as appris sur le concert de Youssou quand car ils ont voulu synchroniser le concert Moi, nga ne xaaral wax Ousmane Sonko pour amay nit Freddy là tu parles pas pour ton peuple là tu parles pour tes intérêts personnels Sada Freddy je regrette beaucoup avec tous les respect, avec tout l'estime que j'ai envers toi, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es passé à côté de la plaque de La prochaine fois, avant de faire quelque chose, pense d'abord aux 17 millions de Sénégalais et enlève une seule personne qui s'appelle Ousmane Sonko. Il y a 17 millions de Sénégalais dindi ci Ousmane Sonko intérêt 16 999 mille Sénégalais Father Freddy, regarde l'intérêt des parents des 40 personnes qui ont perdu la vie. Father Freddy, regarde l'intérêt des Sénégalais qui ont perdu leurs emplois par part euh, par Total. Father Freddy, regarde l'intérêt des Sénégalais qui ont perdu leurs biens, leurs voitures. Father Freddy, regarde l'hôpital de Sacré-Cœur qui a perdu son corbillard à cause des voyous et des bandits de Ousmane Sonko qui ont voulu semer la terreur et le chaos dans ce pays. Father Freddy, tu étais où en ce moment-là Tu étais aveugle, tu étais borgne, tu étais loup, tu n'entendais pas. Father Freddy, la prochaine fois, avant de parler en public, il faut bien réfléchir et penser d'abord à ton Sénégal. Le patriotisme, c'est aimer d'abord son pays. Le patriotisme, c'est savoir défendre l'intérêt de son pays. Le patriotisme, c'est savoir c'est quoi tes institutions. Father Freddy, le patriotisme, c'est respecter les devise de ton pays. Father Freddy, le patriotisme, c'est pas se renfermer derrière une personne qui pollue l'atmosphère avec un populisme de personnes, avec la peur. La peur ne fait jamais gagner. Il faut toujours oser affronter la vérité telle qu'elle est. Classe, le pays nous appartient à tous les Sénégalais. On doit respecter le pays. de Freddy hypocrite mensonge parce que su libérer Ousmane Sonko moy tax juste am Ousmane Sonko lu mu fi def mi ngi ne tek mi ngi ne yak amul ben artiste bu ñëmé taxaw né Ousmane Sonko woote na l'instruction de quoi avez-vous peur si vous avez peur baissez vos micros ou bien parlez d'autres chansons et sortez de la politique et sortez du panafricanisme parce que barki dem mu invité naa nii gamaas mu ne Fada Freddy panafricanisme bu muy def parce que dafa dugg ci bir loba motax mu bañ nangam sangam motax nga delu pour une révolution Fada Freddy c'est pas comme ça qu'on doit faire pour gagner l'affection et l' L'attiration du public il faut le proposer sur la vérité la véracité En tout cas, faut en tout cas muy li nga xamante Fada Freddy wax Toulouse pour libérer Ousmane Sonko c'est la vraie démocratie tant que libérer Ousmane Sonko dans les classes c'est dommage pour Fada Freddy